waat ko yow am nga posé danaa la posé benn question occasion nag man maa posé question donc ma relancé la <laughs> naka la ñuy def ba créer parti politique laaj naa la ko 3000 francs CFA waaw coow li si coow li si ay xëccoo parti dafa mu amul sens dégg nañu AJPADS di xëccoo RND di xëccoo lu waral coow li ak xëccoo waaye pourquoi dama man sama laaj mooy nee la yow bëgguma ko gêner non parce que dama am sama liberté d'action et de ton mais da nga gêner dañuy wax avec dévolution wax ma cité ma comme euh, Cheikh Bamba Dièye kenn du ma sonal moo tax ma créé sama parti libéré sama pap bàyyi ko du am benn problème tey doo dégg Ndella Madior dafa nangu parti papam sonal jeunes yi fa nekk mm-hmm. man maa créé sama parti libéré ko mu ngi def activité maa ngi def samay activité tey ñu jubóowu lool ndax mooy sama premier conseil fu ma cangee si conseil ma ñëw mu dóor mu doon mu daal. bien que nag euh, sa personnalité xam naa des fois. sañ ma ko laaj mais xam naa ne des fois sa papa nee la ma ne ndax ndax. fu mu nekk il me il me supporté il ne voulait même pas que je fasse de la politique. <laughs> pour la petite histoire hein, il ne voulait même pas maintenant xalaatu woon sax dinaa déposé xamoon nag yore naa xaalis mais mm-hmm. xalaatu woon. mais dès l'instant que ba ma ko wonee attestation bi si la xam ne nag caaxaan léegi nag jeex na. Mm-hmm. waaw léegi maintenant bon. léegi il ne euh, fait qu'observer. waaw léegi nee la euh, euh, émission bi jeex na daanaka. Mm-hmm. parce que comme tu le sais c'est c'est c'est c'est taf taf. face to face voilà c'est face to face <laughs> alors nee la dis-moi yow fi mu ne législative yi moom mu dëgg man. absolument. et tu es sûr que. groupe parlementaire lay ñaan yàlla. Mm, waaw moom ngay ñaan yàlla moom lay ñaan yàlla. Mm-hmm. à travers les téléspectateurs. Mm-hmm. et les sénégalais oui. waaw léegi euh, euh, maintenant après les les législatives da nga euh, sa parti tu vas avoir un parti carrément. mais le parti euh, récépissé bi génn na. su ma demee jox ma ko man maa demagul rek euh, Sonali Mbaye Ndiaye. Mm. donc parce que par défaut de temps parce qu'on était tellement fatigué au ministère de l'intérieur ça c'est pas un problème maintenant après les élections eh ben euh, il y aura effectivement un nouveau gouvernement qui sera euh, que Macky va mettre en place. Mm. qui dépendra des des résultats. actuellement gouvernement bi fi nekk daf nekk tout simplement pour di xaar élection résultat euh, élection législative yi génn. mais yow tu n'as pas envie ne la nga dem euh, jàppale Macky tu n'as pas envie de ça. c'est pas un problème de jàppale Macky Macky ñëpp a ko war a jàppale. nit yi politiciens yi waxee ma foofu politiciens yi war nañu soxor ñëpp war a jàppale. pour ñu war a defar suñu dëkk bi defar régler tous les problèmes. waxee ma foofu de dama ne nga dem dugg ci APR. la ko hors de question pourquoi dugg ci APR alors que j'ai mon gaaw mais non. nit ki da ngay am sa personne nit ki da ngay am sa personnalité bopp ak sa jom bopp ñeme coono. Mhm. je suis dans la réconciliation nationale pour l'unité africaine j'ai la seule femme actuellement tête de liste nationale damay dem ba jeex. mais pourquoi tu est-ce que est-ce ba nga duggee si euh, ci yëf yi dem nga seeti ji sa yaay yooyu ñoom Juma Jaxate dañoo am sa tur. amu woon temps bëggoon naa ko mais c'est le temps personne n'avait le temps. personne. J'ai fait seulement un appel à, à Mariam Wanli, qui est à la CAP 21, je crois. Mm. Je lui fais une petite publicité. Hein? Donc, euh, elle est très sympathique, Mariam, c'est ma maman. Et puis, euh, j'ai pas eu le temps d'aller voir Diouma Dieng. J'ai pas eu le temps, je connais pas Amsoto Sidibé. C'est des femmes euh, d'une qualité extraordinaire, qui ont leur place. Heureusement, maintenant que Maki l'a compris, elle a nommé récemment ministre euh, conseiller, conseiller. Amsoto Sidibé. Maintenant, nous avons pour Juma ndax jigéen ñi dañu am seen wàll autour de Wade autour de de Macky. et toi euh, euh, euh tu vas porter quoi toi de plus hein? mais le contrôle de l'État il faut que ces députés qui ne font qu'applaudir ça cesse il faut les éliminer là il faut amener que... des des députés qui sont là pour contrôler l'action de l'État c'est très important contrôler comment l'argent est utilisé, pourquoi tel, euh, euh, hôpital n'a pas été construit, n'a pas été équipé. Bref, le travail d'un député. D'accord. Alors, euh, émission bi jeex na. Mhm. émission bu neex. <laughs> yow yaa gën neexal. dina da ngay defaat beneen face to face. après élection législative. waaw waaw donne rendez-vous. on prend on se donne rendez après les législatives. waaw ñu def ñu tiré un bilan ñu dooraat beneen. ñu dooraat beneen bu saf. tiré un bilan xool ndeel boo lajjee duggoo ci assemblée nationale ma ñëw taalal sama caméra jël sa jooy sa rangoon yi. ma ne euh, face to face. Hmm. on le fera à l' assemblée. prochaine face to face ak Ndella Diouf. Hmm. ce sera à l' assemblée nationale. ndeel tàgg toowal. maa ngi leen di tàgg. <laughs> Euh, c'est la première fois que équipe TFM ñëw seet si ma ah donc euh, Youssou Ndour c'est un c'est un c'est un bâton ah donc ñu koy ñaanal mu mu réussir euh, euh, ministère am ñaari ministère am parce que ñaar la yore. Mhm. donc l' équipe de TFM c' est une équipe très professionnelle. Mhm. ah ñoo xam ne oui très professionnelle. RFM mhm. très professionnelle. euh, c'est à l'image de Youssou Ndour qui mmh. choisit de mettre les professionnels devant. Mmh. Et hein? Ah, les Là laisse... où j'ai euh, pêché, moi, avec Santé FM, j'avais pas de professionnels. <laughs> mais ça, euh, au moins, tu reconnais que c'est ta faute à toi. Absolument. Maintenant, bon, faute vous nek, ah, tu en tires une leçon. c'est tout. C'est pas pour rien qu'on qu qu est maintenant à Saphir euh, et qu'on nous voit sur www.saphirfmtv2.com. Plus, vous alors noo gisee émission bi tey. ah bi de moom. Euh, mënoon na gën a neex. waaw mais mais nee na on dirait que euh, euh, depuis que tu es de nouveau maman. oui. Euh, tu t'es assagie un peu. Oui, parce que l'enfant te, te calme mm. et puis euh, tu as automatiquement envie d'avoir d'autres bébés. Mm -hmm. Ça, c'est toutes les mamans. Mm -hmm. Et puis euh, voilà. Tu as donc... un nouveau, Tu as un nouveau regard sur, sur le sur monde, la, la Sur la vie, oui. oui. Donc, euh, l'enfant qui, qui a besoin de, de, toi, qui te dit maman, qui commence à apprendre à marcher, etc. Et qui prend Donc, c'est maintenant, j'ai envie de, de montrer ah. la femme, la maman au service du développement du Sénégal. Là. Donc, Ndella Diouf. Donc, loolu laa bëgg ñu retenir si man. Mm, mm. Donc, une maman au service du développement. Émission bi jeex na. Voilà. Euh, Ndella, euh, je te remercie, hein. Donc, euh, euh c'est ma grande copine. <laughs> <laughs> même si suñu waxtaan ça part dans un peu tous les sens parce que Néla elle a une imagination débordante et oh, tellement fertile donc Absolument. du coup euh, ça ça part dans tous les sens mais c'est toujours en en à l'Assemblée nationale donc euh, on prend date. alors mbokk yi ma leen di remercier euh, di di ko remercier également euh, ci euh, ni ma dalalee ci studio am yéen tamit ñu leen di remercier mais may remercier comme d'abord sama sama équipe bi ma àndal ah Ameth Niang en face de moi. moi à côté Missa Ndoye en face Papi euh, Abou nga xam ne euh, c'est un démissionnaire qui refuse de revenir. donc c'est des de très grands pros. Oh, et c'est à l'image de tout le groupe euh, Futur Média. alors je remercie également mon monteur Pape Samba Thiam le nouveau marié euh, dont la lune de miel euh, ne connaît pas encore. jeexagul <laughs> lune de miel bi daal xam na am na début mais ah. <laughs> madame Thiam nga bàyyi lu ñu suñu alors. donc mbokk yi may may remercier nag ah, ci lii yëpp nii euh, surtout le make-up côté bii ci kaw voilà a mettre tu prends en haut voilà ci kaw nii les cheveux naturels et tout le le make tout tout tout euh, sama mag ju baax la euh, Fatulaay Kena madame Sall euh, borom complex sofia partenaire premier partenaire pour ne pas dire vraiment le partenaire de cœur de de la TFM donc Fatulaay Kena ci Mamel Aviation yéen a ngi gis adresse bi en bas de vos écrans donc moo jaar fii ci bagage yi nag kan moo ko yi nag moom wax dëgg fa yàlla si réew mi tubaab yi <laughs> yii yëpp daal non yii yii moom ADF la moom ca ca suñu réew ma ah, ah. <laughs> suñu réew ma man ak yow <laughs> donc euh, vraiment may remercier a ah, si jàpp ñëpp di remercier nag ci ci euh, euh, make up bi surtout xale yi Fatlaye Kena yooyu nga xam sonal naa leen voilà donc muy Binette ah Binette Lady Gaga ñoom ñëpp damay xale yi ñoom ñoo la atul tur waa complexe Fia Binette mooy Lady Gaga Bijou mooy Katy Perry ah euh, ami mooy borom cheveux naturels ak yooyu ami nag kooku mooy Nicki Minaj donc euh, may remercier daal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tout le monde tout le monde ku lim da ngay juum euh, je remercie tout le monde je fais un gros poutou tout le monde et on se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Face to Face et n'oubliez surtout pas la rediff c'est tous les mardis après mon grand frère Ngagne Diagne donc après Rofo